docteur tariqa be bari fi tànk ayu bi max naawu man dem si aari mbay mooy docteur tariqa bi max naawu nañ dem si aari دكتور طارق بدر في تانك عايفي ما يمنتي بمخنعه ما دكتور طارق بدر في تانك عايفي ما يمنتي بمخنعه في كنتر دايريه danga jàngul xilaasu zaar ba ci buntub mu zeynatu mbay min tiibi max naaw ngeen si yaari may mooy docteur taalaay bay fi tànk aw fi mbay min tiibi max naaw yow jàngal mu zeynatu xam coosaanal daayira xalifa roy sunna si yonnen mbay minti bi max naa woo. dem ko soppi si ñu Babacar Sy. jàngee mbooloo ya daan dikkal sunu yoon nan bu ñu demee Tiwaawan gis ko Saalum bay

باي من طيب مخناي رندم سيار باي موي دكتور تارو علي برفي تنك عالفي باي من طيب مخناي لخجاك او خلفاي سنغل كم ay soppeem am nañ cay daawal fóot ci may sangu مي من طيب مخناي نفسي عالمي مي دكتور تعالي مي في تنك هاي في مي من طيب مخناي لخجاك وخلفاي لمبنغر مولم وخي لاريا غيون بولو ليلا يالا مي مي من طيب مخناي docteur tariqa be bari fi tànk ayu fi mbay min tii bi max naaw may mooy docteur tariqa bari fi tànk ayu fa mbay min tii bi max si aari mbay دكتور طارق بيبري في تانك عايفي ما من طيب مخناوي مي دكتور طريقة بيبري في تانك عايفي مي من طيب مخناوي كنتر دايره danga jàngul xilaasu zaat ba ci buntu mu zeynatu mbay min tiibi maxnaawo angan suyaari may mooy docteur taalaay bal fi tank aaw fi mbay min tiibi maxnaawo yow jàngal mu zeynatu xam coosaanal daayira xalifa roy sunna si yonent mbay min bi ma xanaaw. dem si waay ba kër si waay. xam nga yéen a ngi fay tànk aw ah. bi ma xanaaw. ba ko jàngee mbooloo daan dikkal sunu yoon nan ba. bu ñu ti waaw gis ko saalu mbay. بين طيب مخمع النمس عيني في تمك عيفي بين من طيب مخمع قلب بي وينالا كنالا جف سلنالا جخنالا سمخ البي كندو يوفي mbay min tiibi max naa lan dem siyaare mbay mooy docteur taaru alaay boo fay tànk aw ah. min tiibi max naa loxo ca kaw xalifaay sangal kam ay soppeem am nañ cay daawal ci mbay sangu mbay min tiibi maxnaaw dem si yaay mbay mooy docteur taalaay bari fi tànk ay fi mbay min tiibi maxnaaw loxo ca kaw xalifaay lamp ngor mboolem gox yi leer yaa ngay wëndeelu lii la yàlla may mbay min tiibi maxnaaw docteur tariqa bee bari fi tànk aayu bi max may mooy docteur tariqa bee bari fi tànk bi max naaw def leen ni nañ dem siyaari

ñu ngi koy yëkkati ak sunu nuyoo ak sunu siyaar teg ko ci loxo nga jotal nu ko ñàkk a war waaye ñu ngi jiitu sunu baay ba suñu Abdul Aziz Al Amin jàmbaar ga ku muñ ka ku tabe dëgër awlam attan ñëpp yaa fi naa koo ñëpp ku amu fi bëgg lu baax kenn du ko ci kenn du ko ci dégg kooku la ñu nuyu la ziar la jël yooyu teg ko sa loxo nga jël sa benn ko mënuñu koo fàtte mukk nag kenn du ko fàtte njàmbaar ga teb ga ak bopp bëgg ci dara lu ñaaw topp mag ñi ba di ko digal gone ñu topp mag ñi yii da leen xamal ci moom yàlla yàlla leeral bàmmeel bi jaati rasuuli bi sallallahu alayhi wa sallam jigéen ñi ànd ñu ñëpp ñu ngi nii góor ñaa ngi ñëpp a ngi nii fardu kifaaya dafa am waaye ko mel ni kenn du ko def waaye nag nungul nañu fardu kifaaya parce que fañ loolu nag moo tax ñii teew waaye ñëpp a teew ak ñi teewu ñëpp seen xol teew la seen yéene teew la seen pas-pas teew la teg nañ ko nag ko la wax du wax am na fi ñett nee na soo dañuy ñëw fii bëgg barke doomu doomu doomu am na Tiwaawan soo ñëwee fii bëgg fi xam-xamu kese kese kese am na Tiwaawan nee na soo fi ñëwee boole barke ak xam-xam am na fi waaye nee na soo bëggee ceebu kese am na waaye du baax kër Matar daal ah kon ñun barke la ñu bëgg ak xam-xam waaye nag ak ceeb ndax ñoom yàlla ceeb bari nañu ko gëm. <laughs> bismillah yonent yàlla jëf bari na ci ko gëm yàlla nañu ko yàlla yombalal bi jaay sa sëriñ bi sallallahu alayhi wa sallam su ko defee yàlla gën a yomb ndax dina tax nopp yi li ñuy wàcc mën ko dégg dana tax borom kër yi itam dara waaye borom kër bu amul ceeb boo ko waxatu ko dégg la suñu bàyyi moo waxoon nag sëriñ Moustapha Jibil Cappaar moo ñu indi fii tey booba suñu jarbaat yi ak suñu rakk yi bari nañu ko fekkewul waaye jëli bàyyi fekke na ko bàyyi sëñ Jaañ fekke na ko bàyyi kii bàyyi moom Jaañ fekke na ko bàyyi kii ak alaaji moom di jóg sëñ Mustafaa ne yéen ngeen demee na ngeen organisé téye xale yi ngeen ko diful bon yi dañu wàlle keneen seetaane koo xam ne la ngeen di cee lay seetaane du dëgg kon ñun ñu ànd nañu organisé suñu jàmbaar yi suñu jàmbaar yi suñu rakk ji man ko jiitu yàlla yàlla dëgëral ko ku am pas ko sa ngi ku muñ a ngi nii ku bëgg sëñ Abdou al amin ak bay ñu ak mboolem ñu topp ñu ngi nii wa tabaarakallah ñu ñuy topp ci moom nag ci nu mu lay jaar yal yàlla guddal su fan defal la wér ak wéral yaram wéral xel bi wa tabaarakallah soxla muñ nag te muñ nag daa jafe ci ndax daa métti foo dégg muñ ne lu métti lay doon damay wax ne kaas boobu jënd kuy yi suukar ko kenn du ko naa ñu naa la muñal am léegi jëm ci dong lañ nekk nit kon ci yàlla da da nag kaas kaas yi daa bari léegi loolu kon ci yàlla na def lu muy di jaay di di salaat wax dëgg bu daal daal laa bañ maay kontaan na yàlla yàlla kontaan ñoo ngi yeesal suñu pas-pas ak suñu yéene yàlla yàlla dëgër ko yàlla bu ñu génn tariqa ci Ahmad Tijaan yàlla bu ñu génn ci islam bi waaye waaye waaye ñun ñëpp yàlla ànd see ci kanam ci Aaji Maalik jaayal sura ànd barke sutura lu ñu am nañu am sutura lu ñu ñàkk nañu am sutura waaye waaye ëllëg yàlla ànd ak way yiw yi yal na nu yàlla sàmm barkeel assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu sayyidi al awwalina wal axirin wa ala alihi wa sahbihi ajmain salaamu aleykum wa rahmatullahi mbokk jullit yi mbokk xadara bu tedd bi sëriñ Moustapha si al amin ngi lay nuyu di la ziar ziara boo xam ne yaakaar nañ ci dolleeku ci wàllu yàlla suñu wala wala yaakaar nañ ci tamit dolleeku ci wàllu barke waaye ci wàllu yëpp xam nañ ne loolu mi ngi yow tabaarakallahu sunu xaalifina di la nuyu nuyu bu xam ne suñ ko mënoon parfum dañ koy parfum suñ ci mënoon def lépp dañ ko ci def ndax sa taxawaay ci diine ci tarixa bi kër sëñ Abdou kër sa maam sëñ Babacar Si radiallahu taala an yàlla yàlla jox la ci daraja yu lu ëpp sa njot ndax xam nañ la bu baax a baax bu baax ba muftafil di door ñetti doon napp napp ci lañ bokk yàlla dogal ñu mujjee xaw a sori waa Thiaw yi waa Pikine Malika ànd ak mbokk yu baax yi waaye suñu tàggu yëpp njëkk waxtaan bi lañ ko def tabaarakallah ak sunu xaalis kon ñu am nañ ko bu baax ñu ngi lay nuyu di la ziyaar bu baax bu baax. kàddu seede rek moo tax sax ñu jël waaye suñu baay bi bàyyi njóogu gay wax te ñun dara ñoroon ñu lu kër Seydi Hadj Malick dara ñoroon ñu lu tarix Cheikh na Tidiane Chérif loolu rek ak diine ji moo ñu ñor kon bu ñu gisee ay ndaw yoo xam ne dañoo dëgëral seen pas-pas sàcc seen dikk taxaw comme maam ya taxawoon fa bàyyee taxawoon ñooñu dana baax ñu seedal la sa si ñi nga am sa njaboot yi njaboot bu fort la njaboot bu baax la njaboot bu mu ne dimbale wante njaboot bu gëm lu mu njaboot bu am fit ci lu ñu nekkal xam nga Malika ay jamono doyoon na waa métti woon na waaye maa ngi taxaw samp seen i wet sëriñ Babacar si maam sa dem leen dinaa leen Malika muy perub dikk muy perub dikk perub dikk waaw mooy mu ne def naa leen waaye tey dafa leer nañ ndax tey la wër ma ne ko bu bu bu timis jotee da ngay dégg naasiril xaq bil xaq bu fajar jégee da ngay dégg naasiril xaq bil mot ñaar fukki jàkka ak nanga seen maam yi ak seen bàyyi lañ ko doon wax muy mi baayam ak ay maam dañ ko ay morom baay morom yi maam te ñun ñooñu seeni doom ak seeni sët ñooñu jébbal la leng yi xam ne yaakaaroon ku dul yow kon yam fañ ko doon wotee rek foofu lañ ko wotee ba tabarakallahu sunu ñëw tamit nag yemuñ rek ne cundu ndax dañ ne suñ baabakat da daan wax radiallahu eh, waaye boobu kese tamit dalul xel baabakat waaye mag yi ñu àndee ak xale yi xale yi defee doole mag ñu waxee xel ñu def xeleet loolu la ñu àndee ba ñëw tey mboolem ñu ne mag Malick defal nañ la taraanga ñëw ci yow ku sa kanam ne la amuñu lu dul yow dañu bëggoon ñu ànd dem Tiwaawan maanaam euh, yitte la rek waaye kon tey fii kenn sa taj waa Malick yëpp lañu ñëw ndax amuñ ku dul yéen te wallaahi lu fees saal bi ñaar fukki yoon am na malik ay taalibe yoo xam ne jéem rek la ñu loolu moom du leer loolu ay fàttali la ñii ay jàmbaar ñu nga covid bi mu amee ñoom ñii ñin ñi nga xam ne dañ daan dem ci terrain waxtaan kenn ku nekk dañuy jël saaku ceeb ak diwlin ak xaalis ñëw sa kanam jox la ko ne xam nañu jamono bi neexul nga dimbale ko nii xale yi ñëw dajale seen biir wala ak tàndarma tamit lépp luy daal noonu lañ nekkee ak mag ñi nga xam ne ñoo nekk seen mani tabaraka allah di leen ñaanal yàlla subhanahu wa taala yàlla sàmmal leen boppam parce que alquran al karim te ñu ngi la koy ñu leen di dénk ñu ñu ngi dénk suñu bopp de waaye ñu ngi lay dénk xale yi maanaam doolu yaañ mii moom mooy kilifa gi nekk ci kanam waaye dafa dégg ñëpp li nekk Mansour moo nekk ñëpp tabaraka allah in uridu illa al-islah ma stata'tu wa ma tawfiqi illa billah السلام عليكم ورحمة الله إيه bi yàlla bi toogal ñooñu yëpp tamit ñu ngi lay jox seen nuyoo di la wax ni Malika gépp ñu ngi lay nuyu di la ziar ñëw nañ comme ni ñu daan ñëwee ndax daje bii li ko sabab mooy njabootu tariqa bi nekk ci Malika yëpp dañu amoon yéene di Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum joxe ndigal sa wéyjur sunu góor gi Serigne Abdoul ba su ma sañoon ku muy dimbali na ma dimbali ci njabootu xadara bi yëpp nekk benn ci Mali bi ñu ne nañ ko jëmmal képp fii daayira doonte xadara bi nekk am na kër boo xamante ni dafa jox ñu ni ñu nekk ba dawaat yi fi nekk yëpp doonte bu ci nekk am na kilifa boo xam ne moom la jox ñun ci Mali ko ñu cinq minutes yi unité boobu yàlla dogal njaboot boobu tey njaboot ci tabaski bi bu ñu ko tuddee daal ba ci jëf mooy daayira ba nga xam ni moom lañ joxoon man sa wuñ sama Serigne Babacar Sy suñu yaakaar tey ak ëllëg joxoon ko man ñi en 1943 muy daayira bul axyaar al axyaaru tijaani joxoon ko man ñi daayira boobu di watatu ba tey nga nekk ca booba di sunu mag Serigne ma di Fall su ko tee jàppandi suñu jigéen soxna Anta Diop daayira yooyu ba tey bokk na ca daayira taxañ wal irshad daayira boobu suñu suñu wéyju sa wéyju sëriñ Maodo si Tamba moo leen jox turu daayira di seen di seen di seen joxuwaay waaye ñu boole ko ci biir mbooloo ci wàllu liggéey daayira motaxabbiina ndax motaxabbiina yi ñett la daayira Mutahabina un nga xamante ni suñu wéy yu wii toog bal xaaji la muy teg moo nekk ca boppam daayira taxadim wal irshad nag dinañ ci taxaw ndax Serigne Maodo moom moo joxe woon tur wi uh-huh. euh, nga xam ni keroog ba ñu fa demee ñu ngi waxtaan ci wàllu yar ak teggin mu jël xasida ba nga xam ne waykat bële moo ko woyoon uh-huh. ci ci Cheikh Hadji Abdou li mu doon wax ni jëlal rafetal yaru ndaw bittiini wal taalim wal irshaad na ko baat boobu jibee noonu la jëlee tur daayira bu tuddeewaat ko tur daayiratul taalim wal irshaad boobu ba léegi nag ña dañu nekk sunu mag bu tedd ci Sëriñ Mor Ndiaye ci dëkk ak sunu wéy yu soxna Awa Gueye daayira mutahabbiina la sunu baay Alxaaji Lamin Sekk moo ko jiite daayira mutamassikiina bi sunnati xayril aalamiin daayira sunu wéy yu la Sëriñ Babacar Si Abdu ñu ngi ci mbooloo bi teew góor gi alxaaji Ibrahima Mbaye mooy seen président daayira muxtasina li asaari abaani wal ajdaad ah di daayira sëriñ bi di suñu daayira ah ñi nga fa tamit bokk ci section yëpp ak coordinateur yi muxtasina ak yëpp waaye ngir jëmmal kàddu boobu nga xam ne xalifa bi joxoon na ko sunu baay sëriñ Abdou ñu ne yëpp nañ ko boobu mu nekk ci benn ndax li ñuy liggéey ca Malika mën a am doole mën a am li mu war a représenté dëgg-dëgg ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ jàll kon nag ñu ngi leen ci ziar baax ci mani di jégglu kàddu yi jël sa kanam ndax ëmee gi lu ëmb la tax na ñu gëlëm ba mënuñoo wax ci sa kanam waaye ñu ngi lay ziar di la jéggul di la ñaanal yàlla ci mani ci mani bépp naal loo xamante ne xaadara bi ma ngi naal loo yàlla na ci yàlla may lu kawe kawe kawe kawe kawe te mu jig la tey sa muutee suñu muut ci zahira ci baatin ñu ngi lay nuyu baax di la ziar ci mani wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa bëri àndoon ak suñu réew ñu jiitu ci ñu def ak ñun yàlla na leen si yàlla gën a bàyyi ñu leen tënante ak ñun ba mu yàgg lool lii daayiratul axyaar الزيت داير المحسنين والمحسنات не перебракативать и дрова карибра чек или взятый Ливали Бог и молитвы Jadi masuk Jad Dan yang terlih Zinikam Gerbau Bayu Kini Aksu Ustaz Ustaz Jani Ustaz Jani Yang kenal Bukti Yang kenal Bukti Yang kenal Bukti Yang kenal Bukti Atak bagi waktu dia, bagi cara dia, bagi waktu. Jika aku terbiar dia yang dibuat dengan kerabat rasa roh boleh mesti ganjil baik alhamdulillah baik loolu muy loolu muy dindi kàpp kër gi bay ceeb di faral bu baax yàlla na ko yàlla dolli leer fa mu tëdd di sunu baay di bàyyi ci yenn yu bëri ci yi tey jii mooy Now, yi ngeen def ci ñaari dawaa yi rawatina Death Death Death Death Death Death sox di ko yàq xaj di ko seey xaj di ko seey mu mel ni kon loolu mu mel ni kon loolu moo indi xalaat moo indi xalaat ziar bi ziar bi ay ndaw rek ñoo ko jóge ci ay ndaw rek ñoo ko yëkkati ñëw ci seeni wayjur ñëw ci seeni wayjur lañ ca daan togg ndaw yi jëlal ko seen bopp ñoom it ñu ñëw gunge leen wéttali leen ngir rek seen ñeewante ñoom mag bu ko defee nag ñu war a jëlaat taxawaay bi ndaw falsafa diine. boo demee ci sunu falsafa diine. yeneen ci bi. yeneen ci bi. dafa sédd lu bëri ndaw yi. dafa sédd lu bëri ndaw yi. ndax booba. ndax booba. dafa jóg. dafa jóg. te mu laaj. te mu laaj. ñi mu àndal. ñi mu àndal. te booba itam. te booba itam. penc moo dem. penc moo dem. ndaw yaa fa ëpp. ndaw yaa fa ëpp. ndaw mooy gunge ndamu kilifa. ndaw mooy gunge. ndamu kilifa ndamu kilifa. moo tax. moo tax. mu miise mu miise lu bëri ci ñoom. mu miise lu bëri ci ñoom. moom sallallahu alayhi wa sallam. ubbil leen buntam. ubbil leen buntam. dénkaane ci seen wàll. dénkaane ci seen wàll. usikum bi shababi xayran. usikum bi shababi xayran. annahum araqu afida li annahum araqu afida maa ngi leen di dénk maa ngi leen di dénk ndaw yi ndaw yi moom la dénkaane moom la dénkaane bàyyi fi bàyyi fi maa ngi leen di dénk maa ngi leen di dénk jigéen ñi jigéen ñi lu tax lu tax ñoom ñooy ñoom ñooy cible yi gën a sensible ci penc cible yi gën a sensible ci penc ku bëgg a yàq ku bëgg a yàq mën ngaa dëgg ci ñoom mën ngaa dëgg ci ñoom yàq loo bëgg a yàq yàq loo bëgg a yàq ku bëgg a defar ku bëgg a defar mën ngaa dëgg ci ñoom mën ngaa dëgg ci ñoom defar loo bëgg a defar defar loo bëgg a defar kon nag ñu ne kon nag dañu leen bàyyi xel dañu leen bàyyi xel ñoom ndaw yi ñoom ndaw dañu leen may déglu dañu leen may déglu di déglu di déglu aajo. ci seeni aajo. di jéem pexe. di jéem pexe. faj seeni aajo. faj seeni aajo. nañu leen toppatoo. nañu leen toppatoo. nañu leen xamal. nañu leen xamal. jàngal leen ba ñu xam. jàngal leen ba ñu leen teg ci teguwaay. nañu leen teg ci teguwaay. bu leen mën a may. bu leen mën a may. ñu mën a sam. ñu mën a sam. ëllëg ëllëg. ku dul màpp. ku dooley pénc ndax ñoom ñooy dooley pénc ñooy seen yaakaar itam ñooy seen yaakaar itam pénc mu am ndaw yu jot pénc mu am ndaw yu jot yu jag yu jag su la neexee su la neexee nga ni sa ëllëg nga ni sa ëllëg defaru defaru boo ko amul boo ko amul ah day metti rek ah day metti bu boobaa bu boobaa ña fa sës. ña fa sës. ñoo fay sës. ñoo fay sës. te nag. te nag. sëriñ Abdoul Aziz fii ci xadara bii. sëriñ Abdoul Aziz fii ci xadara bii. dafa mos bis rek. dafa mos bis rek. woote réunion COSCAR. woote réunion COSCAR. ñëpp ñëw. ñëpp ñëw. bu ne ah. bu ne ah. dama bëgg. dama bëgg. ndaw yi. ndaw yi. ñu jël. ñu jël. fu mag nekkoon. fu mag nekkoon. ndaw yi jël. ndaw yi jël. mag ñëpp jaaxle. mag ñëpp jaaxle. ndax dafa mel ni. ndax dafa mel ni. dañ leen a retraité la. dañ leen a retraité la. te retraite. te retraite. amul ci diine. amul ci diine. da nga cay nekk rek. da nga cay nekk rek. di ñax ci tool bi. di ñax ci tool bi. hatta. hatta. ya'tiyakal yaqiin. ya'tiyakal yaqiin. dëgg la. dëgg la. ma ni leen toppatoo moom sëriñ Abdou ni bu mag nekkoon bu mag nekkoon dañu bàyyi xale yi dañu bàyyi xale yi ñu taxaw mag ñëpp foog ni retraite moo jot mag ñëpp foog ni retraite moo jot te retraite amul ci diine te retraite amul ci diine ñu jaaxle lool ñu jaaxle lool waaye mu dem ba ca biir waaye mu dem ba ca biir xoolaat nga xoolaat bi mu ne nañu adjoindre nañu adjoindre fu mag nekkoon fu mag nekkoon ñu teg fa ndaw ca wet ñu teg fa ndaw ca wet ndax mag ndax mag moomul yéeg moomul yéeg di aj taan di aj taan wala bâche wala bâche xale moo ko moom xale moo ko moom jël xale yi nag ñu jël xale yi nag dugal leen dugal leen boobu la ñu commencé boobu la ñu commencé inséré. inséré. ci wetu ci organisation bi. ci organisation bi. taxawaayu ndaw yi. taxawaayu ndaw yi. étudiants yi. étudiants yi. ak bokki taalibe bi. ak bokki taalibe bi. mu mujj mu yomb lool. mu mujj yomb lool. delloo siwaat nag. delloo siwaat nag. tàggat leen. tàggat leen. moo indi woon. moo indi woon. boo seetloo. boo seetloo. diggante boobu ba bi muy wuy ji diggante boobu ba bi muy wuy ji mbooloo mu mu dajeel mbooloo mu mu dajeel balaa tax balaa tax dana sédd ndaw ya dana sédd ndaw ya lu baree bëri lu baree bëri ci waxtaanam ci waxtaanam pour bëgg rek pour bëgg rek ñu xàmmee ñu xàmmee encouragé leen encouragé leen ci ñu ñëw ci réew. xam ne lii seen alal la. xam ne lii seen alal la. ku ko déglu ba tey. ku ko déglu ba tey. daan na sédd ndaw yi. cër daan na sédd ndaw yi cër. ci biir waxtaan. ci biir waxtaan. daan wax ni. dafa daan wax. ñoom ndaw yi. ñoom ndaw yi. ñooy xuwwatun. ñooy bay na doo fay. bay na doo fay. Mhm. kàttan. kàttan. ko ñaari néew néew sërtee bu ko ñaari néew néew sërtee wan nañ ko ni ko wan nañ ko ni ko néew néew yi néew néew yi yow yaay seen yaakaar yow yaay seen yaakaar moo tax ñu naan moo tax ñu naan amalul umma amalul umma الشباب الشباب أبو الأمة نوي نوي يا كاري بنتي يا كاري بنتي tax lu tax penc penc maga fa ne maga fa ne ak tuttaag góor a fa ne góor a fa ne ak jigéen soo demee soo demee ba ñu wan la ni la ba ñu wan la ni la tuut tànk bi tuut tànk bi dafa néew doole dafa néew doole te mën a dul te mën a dul mën a gul mën a gul mag mi mag mi màggat la màggat la dafa néew doole dafa néew doole mënoon na mënoon na waaye mënatul waaye mënatul ki mënagul. ki mënagul. ak ki mënatul. ak ki mënatul. te war a dund. te war a dund. kooka. kooka. lay tax dundam neex. lay tax dundam neex. mooy borom kàttan wi defe kàttan. mooy borom kàttan wi defe kàttan. te yaakaaram wékku ci moom. te yaakaaram wékku ci moom. yaakaar boobu nag. yaakaar boobu nag. ñoom buñ koy définir. ñoom buñ koy définir. ndaw li. ndaw li. lan ko tuddee. waxuñu. waxuñu. melokaanu jëmm ji. melokaanu jëmm ji. parce que melokaanu jëmm. parce que melokaanu jëmm. bu bu njëkkoon. ci lañ ñu daan atte. ci lañ doon atte. nit. nit mu doon mag. mu doon mag. wala mu doon ndaw. ñu ni. ñu ni. waxuñu kon melokaanu jëmm ji. waxuñu kon melokaanu jëmm ji. que da fekk mag. parce que da fekk mag. yàlla sol ko. yàlla sol ko. ruuxu ndaw. muy def yëfi ndaw. muy def yëfi ndaw. te mag la. te mag la. boo ko attee. boo ko attee. ngir. ngir. mag la. mag la. tooñ nga. tooñ nga. da koy attee. da koy attee. ngir li muy def. ngir li muy def. ni kon melokaanu jëmm ñu ni kon melokaanu jëmm kenn du ci dëgg atte ndaw kenn du ci dëgg atte ndaw ñu ni loo koy atte ñu ni loo koy atte da koy atte ci at ci at ñu ni ba tey nit nit dana ndaw dana am ndaw di def yëfu mag di def mag kon at yi kon at yi wanewul ni wanewul ni ndaw la. ndaw li ndaw la. ndax damaa mos a dégg sëñ Abdoul Aziz. ndax damaa mos a dégg sëñ Abdoul Aziz. mu ni dafa am benn gone. mu ni dafa am benn gone. benn waay bu ñëwoon gane si ci benn kër. benn waay bu ñëwoon gane gane si ci benn kër. kër gi. kër gi. mu ñëwee. bi mu ñëwee. bala fas yéene fanaan. bala fas yéene fanaan. jamono yi tàkkusaan la ñëw. jamono yi tàkkusaan la ñëw. dafa lay reere. dafa lay reere. mu gis ñu teg cin. mu gis ñu teg cin. mu ni. naa yër cin li. naa yër cin li. comme man fi laay reere. comme man fi laay reere. bu ñuul bi néewee. bu ñuul bi néewee. ma yokkal ko sama bopp. ma yokkal ko sama bopp. gis naa xale bu ndaw bu ñu tërë. gis naa xale bu ndaw bu ñu tërë. mu foog ni liir la. mu foog ni liir la. yeggul sax ci mën a wax. yeggul sax ci mën a wax. daal di jubali. daal di jubali. ci ndaali. ci ndaali. tànk pot. tànk pot. sotti ko ci cin bi. ndeke xale baa ngi koy xool. ndeke xale baa ko. daal di ni ko. da ngaa xam. da ngaa xam. lu sànqalaf ndey toll. lu sànqalaf ndey toll. <laughs> ndax ni ko xale bi waxe ndax ni ko xale bi waxe te waxin wi te waxin wi du waxinu xale du waxinu xale waxinu mag la waxinu mag la wala fi ñoo wax ni wala fi ñoo wax ni giirug as giirug as lu ca bokk lu ca bokk néew na néew na te xale bi wan na ko ni te xale bi wan na ko ni sama ndey sama ndey bu amoon sànqal bu amoon sànqal bariwul bariwul ndax as sànqal ndax as sànqal as jànqal as jànqal suurul nit nee na suurul nit ma ne rek ak jànqal ak jànqal ndox ak ndox màndiwul nit nee na waaye waxin bi mu ko ko waxee nee na waaye waxin bi mu ko ko waxee wan na ko ni wan na ko ni kii kii du ndaw du ndaw mag la da ngaa xam da ngaa xam nu sànqalas nday toll nu sànqalas nday toll wan na ko ni kon. wan na ko ni kon. si sànqal su tuuti la. sànqal si sànqal su tuuti la. nga ñëw yokkaat ca potu ndox. nga ñëw yokkaat ca potu ndox. baa doo yàq togg bi. baa doo yàq togg bi. nee ah, mu ne ah. kii de. kii de. waxeeg man nii. waxeeg man nii. bu baay bi ñëwee wala ndey ji dana ma boole. bu baay bi ñëwee wala ndey ji dana ma boole. nekkoon nag na gaawantu. bu nekkoon nag na gaawantu. tànqaat potu ndox bi mu ci yokkoon. tànqaat potu ndox bi mu ci yokkoon. pour delloo ko ca. saa delloo ko ca daal. mu ne ko ah. mu ne ko ah. da ngay xalal daal. da ngay xalal daal. yaay na ko rek waxi mag la <laughs> daal di jaaxle. neexul daal di jaaxle. di kon nag. xaaral ma teg ko ci xaaral ma teg ko ci bala ma seen day jéeme. bala ma seen day jéeme. naka la ko teg. naka la ko teg. man ko yaa ngoo bu yaa ko tey. man ko yaa ngoo bu yaa ko tey. boo ko tegee. boo ko tegee. tuut bi da ciy dugg. tuut bi da ciy dugg. te boobaa. tuut bi da ciy dugg. tuut bi da ciy dugg. te kon day daal di dee. te kon day daal di dee. kon xaaral ma jàpp ci yàlla tuur ko ci suuf. mu ne ngëm-ngëmu wolof. ci ngëm-ngëmu wolof. ah garay maam yi nag. ko ah garay maam yi nag. loolu moo wane ni ko. loolu moo wane ni ko. dawee ci ci jëm. dawee ci jëm. wala ci ay at. wala ci ay at. teewut a doon mag. teewut a doon mag. comme. comme yenn saay yenn saay nga gis le contraire nga gis le contraire mag mu yegg ci màgget mag mu yegg ci màgget sol short sol short sol short sol short te du ko yëgal boppam te du ko yëgal boppam te dara taxul te dara taxul bëgg a ndaw ndaw lu rek bëgg a ndaw ndaw lu rek ñu xam ne ndaw la ñu xam ne ndaw la loolu moo tax loolu moo tax ñu ni jëm ni ndaw jëm ni ndaw bu ñu ko bëggee firi bu ñu ko bëggee firi firi dañ koy delloo dañ koy delloo xaalatul fikri ci xaalatul fikri état d'esprit tolluwaay bi nga toll ci xalaat tolluwaay bi nga toll ci xalaat ni man ndaw la ni man ndaw la wala mag la wala mag la waaye waaye teewu laa def teewu laa def sa warteef en tant que ndaw wala en tant que mag moo tax alquran moom alquran moom noo wax rek ne ndaw daf noo wax ne rek ne ndaw ñu koy firee ñu ngi koy firee baat bi baat moom la ñu tuddee moom la ñu tuddee shaabun shaabun shaab shaab moom la ñu wax moom la ñu wax ndaw ni soo tuddee shababu soo tuddee shababu muy jamu ba muy jamu ba jamu shab jamu shab fiihi fiihi ashubbaani ashubbaani am na am na baat beneen bu ñuy wax baat beneen bu ñuy wax muy shubbaan muy shubbaan wala shabiba wala shabiba waaye ñoom ñëpp waaye ñoom ñëpp ko delloo. buñ ko delloo. ci maanaaw. ci maanaaw. mooy firi. mooy firi. shaabun. shaabun. mu ngi dellu ci man shabba. mu ngi dellu ci man shabba. man shabba. man shabba. ñu ni. ñu ni. man wulida. man wulida. wa shabba. wa shabba. wala. wala. يجاوز يجاوز ثلاثين ثلاثين أو أربعين أو أربعين في العمر في العمر فهو الشاب فهو الشاب man shabba man shabba mooy kuy judd mooy kuy judd ku judd ku dajale woo dajale woo ca lu wala ñeent fukki wala ñeent fukki at kooku la ñuy tudde chab chab kooku la ñuy شباب شباب دي اي mbooloo دي اي mbooloo شباب شباب شاب شاب kenn la من شب من شب من ولد من ولد وشب وشب ولم يجاوز ولم يجاوز ثلاثين ثلاثين أربعين أو أربعين في العمر في العمر juddu di màgg. judd di màgg. te sa màggaay. te sa màggaay. dépasseegul. dépasseegul. fanweeri at. fanweeri at. wala ñeent fukk. wala ñeent fukk. ñeent fukk nag moo gën a mag. ñeent fukk nag moo gën a mag. ndax alxuraan moom la ñu wax. ndax alxuraan moom la ñu wax. ñu ni booba ba tey. ñu ni booba ba tey. taxul. taxul. mu tax leen a jóg. mu tax leen a jóg. ñu ni bi leen tax a jóg. ñu ni bi leen tax a jóg nag. baat ba. baat ba. moom la ñu tuddee. al fatar. al fatar. fiihi al futuwa. fiihi al futuwa. futuwa. futuwa. dañ ko delloo. dañ ko delloo. ci jikko. ci jikko. dëgg dëgg. dëgg dëgg. ndaw. ndaw. ci diine. ci diine. yàllaay wax de. yàllaay wax de. dëggu ndaw dëgg dëggu ndaw ci diine ci diine mooy mooy ki nga xamante ni ki nga xamante ni ñu ko tuddee ñu ko tuddee ndaw bu du la delloo mukk du la delloo mukk ci melokaan bu bon mooy wane ni kon mooy wane ni kon ndaw li ndaw li sang la sang na te sang na bu ko tàmbalee préparé bu ko tàmbalee préparé pour mu jëm ëllëg pour jëm ëllëg moom it moom it war na caa war na caa participer moo tax boo demee boo demee ci biir alquran yonent yi yàlla tudd yëpp yonent yi yàlla tudd yëpp te tànn leen te tànn leen mu leen di tànn jamonoy ndaw la leen mu leen di tànn jamonoy ndaw la leen tànn ñoom ñëpp ñoom ñëpp baat bi mu tudd baat bi mu tudd alfata alfata fityatun amanu bi rabbihim fityatun amanu bi rabbihim ca ca ashabul kahfi ashabul kahfi

gëm nañu seen borom. gëm nañu seen borom. ndax wétt nañ ko mu nekk seen àndandoo. ndax wétt nañ ko mu nekk seen àndandoo. bu boobaa. bu boobaa. yàlla nee yàlla nee na. ma wétt man yàlla. ki ma wétt man yàlla. ma nekk sa àndandoo. ma nekk sa àndandoo. maa ngi nekk. maa nekk. ki lay dolli. ki lay dolli. fa zidnaahum hudan. fa zidnaahum hudan. njub yàlla la doon ci njub ba penc moo nekk ba penc moo nekk yaa fay gën a jub yaa fay gën a jub wa rabatna ala qulubihim wa rabatna ala qulubihim danaa mooñ danaa mooñ sa dënn sa dënn ba ba mu mën a fees dell ak muñ mu mën a fees dell ak muñ ñu ko bi waxe ñu ko suñu baay bi waxe léegi ndax boo muñu ndax boo muñu doo dem te muñ muñ nag wax na dëgg wax na dëgg dafa metti dafa metti سيد الشيخ رضي الله عنه رضي الله عنه لأنه واجب لأنه واجب muñ ga te muñ ga ne loxo da koo dal ne loxo da koo dal te mettitu loxo nee na mu ngi metti te mettitu loxo nee na mu ngi metti nee na mënul nelaw nee na mënul nelaw ndax loxo bu metti ndax loxo bu metti mu dudd mu taw nii ci kaw di dem génn fan yi yëpp mënu nelaw li man fan yi yëpp mënu nelaw ndax metti naa génn rek naa génn rek doxantu doxantu ba ci wetu dex gi ba ci wetu dex gi wala géej gi wala géej gi mën a am ma mën a am tuuti rek tuuti rek mën na lay wax. nee na mu doxoon ci ba ci tefes. nee na mu doxoon ci ba ci tefes gi. mbeex mi jàpp ko. mbeex mi jàpp ko. mbeex mooy ngelaw loolu ànd ak ndox. mbeex mooy ngelaw loolu ànd ak ndox. te bu tàngee. te bu tàngee. nga mën am. nga mën am. féexlu. féexlu. boo demee ndar ci hydrobase. boo demee ndar ci hydrobase. sama mbokki gànjol gànjol. sama mbokki gànjol gànjol. wala sax Malika. wala sax Malika. ca géej ca géej jàpp la. dex bi jàpp la. moom fi mu toog rek. moom fi mu toog rek. ay nelaw dikkal ko xaat. ay nelaw dikkal ko xaat. ba mu teg loxo bi. ba mu teg loxo bi. njëkki jiit. njëkki jiit. nee na raw raw. raw raw. ba yegg si ci loxo bi. fi mu metti ba yegg si ci loxo bi ba muy mettee. daal di ko fett. mu daal di ko fett. nee na mu ne ñu ne ko lan la. mu ne sama loxo day métti. mu ne sama loxo day métti. bi ma koy wiccax. bi ma koy wiccax. ndeke daf koo wiccax. ndeke daf koo wiccax. ci ëkk bu fa nekkoon. ci ëkk bu bu fa nekkoon. mu ne ko ci bàcc. mu ne ko ci bàcc. daal di war um. daal di war um. ñu ne ko lan la. ñu ne ko lan la. mu ne sama loxo dafay métti. mu ne sama loxo dafay métti. ñu ne ko muñal. ñu ne ko muñal. de fu ñuy muñee. ñu ne ko ci xol. mu ne foofa la ñu ma ñam. xam nga yu dajale. léegi de xam nga yu dajale. moo tax mu wax ni muñ dafa metti. moo tax mu wax muñ suñu góor yi muñ. dafa metti. dafa metti. da ngay góorgóorlu te ñu la muñal ñu ne la muñal muñal muñal muy ñaari baat yu teg muy ñaari baat yu teg yoo xamante ni yoo xamante ah. ah ci ngay xamee ni ci ngay xamee ni muñ yokk muñ ala qulubihim moo tax wa rabatna ala qulubihim yàlla yooyu kat ndaw yooyu kat c'était un groupe de jeunes gens de jeunes gens qui ont choisi le Seigneur le Seigneur comme accompagnateur comme accompagnateur accompagnant dañoo taamu seen seen borom dañoo taamu seen borom mu nekk mu nekk ci leen di gunge ci leen di gunge ci seen yoon ci seen yoon yàlla nag neen yàlla nag neen man yàlla man yàlla nun yàlla nun yàlla ku nu taamu ñu gunge la ku ñu taamu ñu la nga bàyyi lépp wëlis ko. nga bàyyi lépp wëlis ko. ngir nun seen nopp. dégg ko réseau yi. dégg ko réseau yi. mu di leen gàgganti. mu di leen gàgganti. gàggantiku ci mbedd la. gàggantiku ci mbedd la. am na koo xamante ni boo ko amee. am na koo xamante ni boo ko amee. doo jël sa nopp dékk ko. doo jël sa nopp dékk ko. waa mbedd la de. te neexul mbedd la de. te lu nekk ngi xew ci biiram. te lu nekk ngi xew ci biiram. sutura amatul. sutura amatul. ndax. ndax. bu njëkkoon. bu jabar ci biir néeg. jëkkër ak jabar ci biir néeg. doom waaye li nga nekkee sa soxna ci biir néeg bi. li nga nekkee soxna ci biir néeg bi. ko étaler bi. ñu ngi koy nga jël ko. nga jël ko. lëkk ko. lëkk ko. foon ko fii. foon ko fii. foon ko fa. foon ko fa. ñu foto la. ñu foto la. dugal ko ci biir. dugal ko ci biir. wala ñu télé vidéo la. wala ñu vidéo la. dara nëbbootu. dara nëbbootu. jamono bu ñu demee ba dara nëbbootu. jamono bu ñu demee ba dara nëbbootu. sutura. sutura ak ko. ak xaawi ko. sutura amatul. sutura amatul. xaawi koo fii. xaawi koo fii de. loolu nag laa bëgg. loolu nag laa bëgg. ñun. ñun. nous sommes une jeunesse d'avant-garde. nous sommes une jeunesse d'avant-garde. ay ndaw lañu. ay ndaw lañu. waaye ndaw yi penc lañ moo xamante ni. waaye ndaw yi penc dafa war a fàggandiku. dafa war a fàggandiku. ba fàggandiku lu ñëw. ba fàggandiku lu ñëw. kon du ñu bàyyi sunu bopp. bopp. lu neex. waaw mbedd mi lu neex loo mbedd mi def loola ko def loola ko déedéet déedéet yow da nga am kilifa yow da nga am kilifa booy gàggantiku booy gàggantiku da ngay dem ci sa kilifa moo lay gàgganti sa kilifa moo lay gàgganti boo bàyyee nag mbedd mi gàgganti la boo bàyyee nag mbedd mi gàgganti la ci musiba nga jëm ci musiba rek nga jëm yàlla bu munu dal yàlla bu munu dal waaye loolu rek la ñu bëggoon caa feeñal waaye loolu rek la ñu bëggoon caa feeñal xëy na waxin wa xëy na waxin wa ak tàngooru ak tàngooru. xulóor bi moo indi. moo indi. mu mel ni lu tàng. mu mel ni lu tàng. te tàngul. te tàngul. dëgg sax du neex. dëgg sax du neex. waaye nag. waaye nag. da ngay seet ki la ko wax. da ngay seet ki la ko wax. ndax da caa am intérêt. ndax da caa am intérêt. wala amu ca intérêt. wala amu ca intérêt. bu ko defee kon. bu ko defee kon. woote boobu rek la ñuy woote waat. woote boobu rek la ñuy woote waat. pour ñu ressaisir. pour ñu ressaisir. bàyyi sunu bopp. bañ a bàyyi sunu bopp. bàyyee sunu bopp ak jamono. bàyyee sunu bopp ak jamono. ak li mu nu indi. ak li mu nu indi. la cay njëriñ koo jëriñoo. mën kenn du ko tere. kenn du ko tere. ndax xam-xam. ndax xam-xam. dafay jëriñ. dafay jëriñ. te. te. dama mos a ànd ak sëñ Aziz. dama mos a ànd ak sëñ Abdoul Aziz. ma yore benn ordinateur. ma yore benn ordinateur. bii. comme bii. yore. mbokk mi ñaare booy tukki nag. ñaare booy tukki nag. boo dikkee ba ci policier yi. boo dikkee ba ci policier yi. réew mu ne. réew mu ne. bala ngaa wàcc. bala ngaa wàcc. génne. da génne. li génne nag ordinateur bi. génne nag seetlu ma. mu seet. ma di ko def. ma di ko def. ba mu mujj. ba mu mujj. xam naa yëf xaw ko tànk. xam naa yëf xaw ko tànk. yuuxu ma nag. mu yuuxu ma nag. waaw yow lii rek. dafa war a yow lii rek. boo dem rek ñu génne ko. boo dem rek ñu génne ko lu tax. ma ne ko sëriñ. ma ne ko sëriñ. ordinateur bi. ordinateur bi. gis nga yow booy tukki. gis nga yow booy tukki. da ngay jël. da ngay jël ay téere. ay téere. def leen ci ay sac. def leen ci ay sac. téere dafa diis. téere dafa diis. soo dikkee ñu peese ko. soo dikkee ñu peese ko. yenn saay. yenn saay. da nga ci fay. da nga ci fay. lu xaw a jege million. lu xaw a jege million. kiisaay ba. ndax kiisaay ba. te kilo bu ne. te kilo bu ne. yaa ngi koy presque fay. yaa ngi koy presque fay. ci cent euros. ci cent euros. ma ne ko man nii. ma ne ko man nii. bibliothèque laa yor. bibliothèque laa yor. ci ordinateur bi. ci ordinateur bi. douze mille téere. douze mille téere. ñoo ci nekk. ñoo ci nekk. téere yi ngay jël di ko yo di ko jagat jagat. téere yi ngay jël di ko jagat jagat. <laughs> yëpp yëpp. biir mu ngi ci sa borom sama machine boobu. ma ni ko. ma ni ko. bu ma soxlaa. bu ma soxlaa. damay taal rek. damay taal rek. bind turu téere bi. bind turu téere bi rek. génneel ma ko. mu génneel ma ko. ma parcourir. ma parcourir. lu ma ci bëgg a parcourir. lu ma ci bëgg a parcourir. mu ne ma ah. mu ne ma ah. ba lii nga yor noonu la mel. ba lii nga yor noonu la mel. ma ne ko waaw. ma ne ko waaw. ñu dem ba ca hôtel ba. ñu dem ba ca hôtel ba. génneel ko ko. ma génneel ko ko. mu xool. mu xool. lu toll ci. lu toll ci. kutubu tafasir. kutubu tafasir. am naa ci xanaa lu xaw a jege téeméer. am naa ci lu xaw a jege téeméer. ma wan ko. ma wan ko. te. te. mooy référence yi mu xam. mooy référence yi mu xam. di ko. xoolee alquran. di ko xoolee alquran. bi ñu paree lan la ma ca teg. bi ñu paree lan ma ca lan la ma ca tegal. yow de bu ñu demee Sénégal. yow de bu ñu demee Sénégal. lii war nga mu koo jàng. lii war nga mu koo jàng. <laughs> xam-xam la. xam-xam la. moom ku ko xamoon. te moom ku ko xamoon. bëgg ak xamam jamono. ci bëgg xamam jamono. xamam jamono. xamam jamono. ak bëgg servir. ak bëgg servir. pencam. pencam.

te sa xalaat yeggul foofu. te sa xalaat yeggul foofu. ku ci sa xalaat yegg. ku ci sa xalaat yegg. war ngaa baaxee ña nga am. war ngaa baaxee ña nga am. wan leen ni. wan leen ni. njàng mi. njàng mi. baax na. baax am na solo. am na solo. mooy sax. mooy sax. li ku nekk. li ku nekk. war a def. war a def. waaye du luñ la indil rek ci njàng. waaye du luñ la indil rek ci njàng. idéologie buñ la indil rek. idéologie buñ la indil rek. nga ne naa ko def. nga ne naa ko def. naka ko étudier. setantal. setantal. lan nga war a topp. lan nga war a topp. ak lan nga warta topp. ak nga war lan nga warta topp. kooku. kooku. suñu warteef la en tant que. suñu warteef la en tant que taw. teewul nag. teewul nag. ñu doon ki ñu doon. ñu doon ki ñu doon. bokk fi ñu bokk. bokk fi ñu bokk. waaye damaa foog. waaye damaa foog. jamono Alaaji Malik daal. jamono Alaaji Malik daal. nun. nun moom moom la. alaaji Maalik ci alaaji Maalik. daf daan xërtal. daf daan xërtal. jabootam. jabootam. ci bépp mbaax. ci bépp mbaax. kon. kon lu bon. lu bon dootul amati place. dootul amati place. sunu yoon. ci sunu yoon. coordination bi. coordination bi. ak mbokk yi jóge Gànjool. ak mbokk yi jóge Gànjool. ñu ngi leen di jaajëfal. ñu ngi leen di jaajëfal. ci taxawaay. ci taxawaay. kawe bi. itte bu kawe bi. surtout. waaye surtout. kóllëre gi ngeen seqoon ak xadara bi. kóllëre gi ngeen seqoon ak xadara bi. te mu jiitu sunu nekk. te mu jiitu sunu nekk. ndax ca maam ya la woon. ndax ca maam ya la woon. te dogul. te dogul. te fa sunu te fa sunu yéene kon. kon. nanu téye. nañu téye. te jàppante. te jàppante. te ñaan yàlla. te ñaan yàlla. képp ku ci bokk. képp ku ci bokk. yal na la yàlla sàmm. yal na la yàlla sàmm. yal na la yàlla musal. yal na la yàlla musal. yal na la jàppandalal. yal na la jàppandalal. ci teraanga. ci teraanga. loo xamante ni. da nga ca mën a dëgg. da nga ca mën a dëgg. samp. samp. ëllëg judul màpp. ëllëg judul màpp. yal na ko yàlla. yal na ko yàlla. ñu toll ci jàng. ñu toll ci jàng. yàlla bi seen dëkk. xam lu ñu war a xam. ñu xam lu ñu war a xam. diplôme yu kawe. diplôme yu kawe. ñu am ko. gannaaw diplôme yi. gannaaw diplôme yi la. na leen yàlla jàppandal. yàlla na leen yàlla jàppandal. ci teraanga. ci teraanga. mën a tax. yu mën a tax. seen ngor sàmm. seen ngor sàmm. ngor bu sàmmul. ngor bu sàmm. diine du rafet. diine du rafet. tariqa du rafet. yàlla na leen yàlla jàppale. yàlla na leen yàlla jàppale. ci dëgëral leen. ci dëgëral leen. suñu baay bi wax léegi suñu baay bi wax léegi ne ah daan nañu sonn naam daan nañu sonn naam ci waajal ziar ci waajal ziar waaye bii yoon waaye bii yoon jabootu ndaw yi jabootu ndaw yi ñoo ko jëlal seen bopp ñoo ko jëlal seen bopp ñoom lay seen alal ñoom lay seen alal ñoom lay seen njëriñ ñoom lay seen njëriñ ñoom ñii di ay ndaw ñoom ñii di ay ndaw te bokk na ci fulla te bokk na ci fulla yaa ko moom léegi nag yaa ko moom nga jëlal ko sa bopp nga jëlal ko sa bopp yaa ko moom yaa ko moom jëlal yaa ko moom jëlal rek yaa ko moom jëlal rek bu ko defee kon bu ko defee kon ñoom it ñu sant leen ñoom it ñu sant leen te encouragé leen te encouragé leen ñaanal leen yàlla ñaanal leen yàlla ku fi ñëw ku fi ñëw aajo boo fi indiwaat aajo boo fi indiwaat booy dellu booy dellu yàlla na la ko yàlla fajal yàlla na la ko yàlla fajal ci barke Cheikhul Khadim rotee Pawa. jàqare boo indiwaale. jàqare boo indiwaale. yàlla teggi ko. yàlla teggi ko. boo jógee Tiwaawan. boo jógee Tiwaawan. foo jëm. foo jëm. foo jubloo ci. foo jubloo ci. yiwu yàlla jublu. yiwu yàlla jublu. ñu rafetlu lool it. ñu rafetlu lool. taxawaay yii ngeen indiwaale. taxawaay yii ngeen indiwaale. ay ndimbal. di ay ndimbal. yu ngeen def. yu ngeen def. sëñ Abdoul Aziz. sëñ Abdoul Aziz. ay ak ci gannaaw ay ak ci gannaaw dafa jàppoon dafa jàppoon gàmmu ci waaw gàmmu ci waaw benn uh, tem benn tem bu mu jëloon bu mu jëloon Serigne Cheikh moo ko ko jox ni Serigne Cheikh moo ko jox ni nañu ko doxale gàmmu ni nañu ko doxale gàmmu bi mu ni ak fa baamu mu ni ak fa baamu dimbalante dimbalante huwa alxal huwa alxal xallul mushkilaat xallul mu ni dimbalante mu ni dimbalante mooy solution mooy solution bi mën a saafara bi mën a saafara problème yi nu mu ni mu ni te dimbalante googu dimbalante li taxoon mag ñi sos seen daayira bokkoon na ci bokkoon na ci bëgg rek bëgg rek jaare ca ñu jaare ca mën a mën a jokkoo ci ak bopp jokkoo ci ak bopp xamante xamante xamante xamante mooy sababu bind gi nu yàlla bind mooy sababu bind gi nu yàlla bind إنا خلقناكم إنا خلقناكم من ذكر من ذكر وأنثى وأنثى وجعلناكم وجعلناكم شعوبا شعوبا وقبائل وقبائل لتعارفوا لتعارفوا التعارف التعارف هو هو سبب الحياة سبب الحياة خمنتي تاه يالا بيندو خمنتي موتاخ سرين بابا كان ني سرين بابا كان ني كون نك دايره بي بو نين في تافي دايره بو نين في تافي دا جور نين خمنتي دا نين نين خمنتي كو خم لا تا موم كو خم لا تا موم خم اجو خم اجو ولا يالا ماي من من ولا يالا ماي من من كو سافر من كو سافر سافرال كو سافرال كو اجو موتاخ موتاخ التضامن هو الحل التضامن هو الحل

booba ku ñëw xam ni ku ñëw xam kii kat kii kat njabootam a ngi nii njabootam a te du laax nag naka a ngi nii te du laax laaloo te du laax laaloo <laughs> kenn du leen kenn du leen yëpp du leen du ñeexu ñebbe. du ñeexu ñebbe du ñeexu ñebbe. ah kii de du ñeexu ñebbe. bu ñu nee kii du ñeexu ñebbe. bu ñu nee kii du ñeexu ñebbe. mooy wane ni. mooy wane ni borom fulla la. borom fulla la borom pasteef la. borom pasteef la te ku laal kilifa. te ku laal kilifa. jot. jot na. naqaram. naqaram. naqari deretam. naqari deretam. kon nag. kon nag. dañu delluwaat. dañu delluwaat. lii di suñuy kilifa. lii di suñuy kilifa foofu. ànd ak ñoom. ànd ak ñoom. déglu leen. déglu leen. ah wax nag. ah wax nag. li nga xamante ne. li nga xamante ne. barki dem. barki dem. moom la ñu santoon. moom la ñu santoon. sëñ Habib. sëñ Habib. sëñ Mansour. moom la wax ni ko. moom la wax ni ko. na nga ànd ak Moustapha. na nga ànd ak Moustapha. ngeen dem ci CDD ba ca préfecture. ngeen dem ci CDD. te bu ngeen demee. ngeen wax bokki taalibe yi. ngeen wax bokki taalibe yi. ni ren incha allah. ni ren incha allah. dogal dogal na. dogal na. dogal na. dogal na. dogal na. gàmmu Tiwaawan. gàmmu Tiwaawan. dana am. dana am. nañu ko wax ñëpp. nañu ko wax ñëpp. te ñu wax leen. te ñu wax leen. ñëw waajal ko ñaari at yi ndax ñaari at yi gàmm gàmm am ren nag ren nag gàmm dana am gàmm dana am ci ndigalam ci ndigalam ne kon nag ñu ne kon nag taalibe bu ne taalibe bu ne bu ko soloo bu ko soloo ko waajal na ko waajal ku ko mën ku ko mën te amuloo benn ngar te amuloo benn ngar bu jotee bu jotee nga gàmm si nga gàmm si te nga gàmm si mu ànd ak mu ànd ak lu mu war a ànd ak lu mu war a ànd ak ren gàmm. tombe gi mu tombeeg centenaire am. tombe gi mu tombeeg centenaire am. moom Seydi Hadj Malick. moom Seydi Hadj Malick. ñu yëg ni. ñu yëg ren. ren. centenaire u gàmm gi. centenaire u gàmm gi. loolu. loolu. xëy na dana ci gën a communiquer. xëy na dana ci gën a communiquer. moom xalifa bi. moom xalifa bi. tolloo rek ñun li ñu ci tolloo rek. li ñu ci tolloo. li ñu ci tolloo. wax nu ko wax nu ko. la ca def nag ku ne solo bu taxawaay jotee na ku nekk taxaw yàlla may fekke ak tam yàlla na yàlla may fekke ak tam yàlla na yàlla mottali te nag yàlla na yàlla mottali suñu mébét suñu mébét jëm ci suñu dund suñu mébét jëm ci suñu xaral rawatina suñu ñii tuub tànk yàlla na leen yàlla sàmm te may leen yoon mucc nag jàng di jàng jàng ma jàng ma yàlla na ko yàlla couronné de succès yàlla na ko yàlla couronné de succès te mooy ñu am ndam te mooy ñu am ndam ci seen i njàng ci seen i njàng ñu jàng ba noppi ñu jàng ba noppi tey wut xëy tey wut xëy yàlla na leen jàppandalal yàlla na leen jàppandalal xëy ñi bëgg a tukki ñi bëgg a tukki yàlla na leen yàlla yóbbu yàlla na leen yàlla yóbbu ci yoon yenu bëgg ca yoon yenu bëgg ni mu ko waxee ni mu ko waxee boo demee ci dëkk bi njaboot bi yëpp njaboot bi yëpp ñu nga ca Espagne ñu nga ca Espagne yenn saa yi ñu dox ba dem fa yenn saa yi ñu dox ba dem fa fekk leen fekk leen ko xam nañ ni bitim réew xam nañ ni bitim réew yombul neexul yombul neexul na mu neexewoon boobu na mu neexewoon boobu bu njëkkoon bu njëkkoon yombeetul noonu. yombeetul noonu. neexeetul noonu. neexeetul noonu. waaye baaxu mag ñaa ngi fi nag. waaye baaxu mag ñaa ngi fi nag. kon dañuy delluwaat. kon dañuy delluwaat. sukkandikuwaat. sukkandikuwaat. seen barke. ci seen barke. ak liggéey ci seen borom. ak la liggéey ci seen borom. mu nangul leen ko. ba mu leen ko. ñu ñaan barke ñaan barke boobu. ñu ne. Sénégalais nekk ci àdduna bi Sénégalais nekk ci àdduna bi. yombalal la. yombalal la. jàppandalal la. jàppandalal la. sàmm la. sàmm la. musal la. musal la. ba nga dox loo bëgg a dox. ba nga dox loo bëgg a dox. ba dellu siwaat fii. ba dellu siwaat fii. ak sago. ak sago. bépp yiw. ak bépp. bépp dara. ak bépp dara. yàlla na ko yàlla doon. yàlla na ko yàlla doon. ñu ngi leen di masawu bu baax. ñu ngi leen di masawu bu baax. di ñaan. di ñaan. kenn ku ne. kenn ku ne. delluwaat ak jàmm. delluwaat ak jàmm. ci yoon bi am ak jàpp ci yoon ba yëg su fekk ba yëg su fekk ba jàpp xadara bi xadara li fi mag ñi tegoon li fi mag ñi tegoon ci wéy di def moom ci wéy di def kenn du def kenn du def du def ko teggi lu ko teg lu dul ndigal la ndigal la taxawaay la taxawaay la itte la pastef la pastef ñun ñëpp ñu nekk ñun ñëpp ñu nekk ñu ngi ñaan ñu ngi ñaan kenn ku ne kenn ku ne njortoo yàlla. boo ko njortoo yàlla. ci barke Seydi Hadji Malick. ci barke Seydi Hadji Malick. booy dellu. booy dellu. yàlla la gunge. yàlla la gunge. boo demee. boo demee. teg ci sa loxo. teg ci sa loxo. muy mébét mu mottali. muy mébét mu mottali. yàlla muccal la. yàlla muccal la. musal la. musal la. te mosal la it. te mosal la it. ni ko suñu baay bi waxee. ni ko suñu baay bi waxee. yéen ci yàlla ceeb. nee na yonent yàlla ceeb. nee na yonent yàlla ceeb. ñu di ko ci boole waay ñu di ko ci boole waay. ceeb bu bëri. am ceeb bu bëri. mbokki njaayeen yi. ak sama mbokki njaayeen yi. ndax sama mbokki njaayeen yi. ndax sama mbokki njaayeen yi. daan wolof day wax ni. wolof day wax ni. weex sar doom. weex sar doom. taxul ndongoy dar gu ca daar. taxul ndongoy. dar gu ca daar. dar gu ca daar. am na lu. am na. bu ko fa defatul rek dellu. bu ko fa defatul rek dellu. kon nag. kon nag. kenn ku ne. kenn ku ne. yal na la yàlla jàppandal. yal na la yàlla jàppandal. teraanga. teraanga ak wërsëg. ak wërsëg. boo xamante ni. boo xamante ni. loo bëgg def rek danga ko def. loo bëgg def rek ko def. ah ceeb bi de. ah ceeb bi de. moom nee na na bari. moom nee na na bari. yal na ceeb bi bari. kon yal na ceeb bi bari. yal na ko yàlla dogal. ah ngeen bal ma. ah ngeen bal ma. ah xaw ma ñu guddal. waaw ah, am na ñuy jël tarixa. waaw am na ñuy jël tarixa. sëriñ bi ñu ngi بابر في تانك عايفي مباي من تيب مخناو عندن سعار مي ميد تار تار بابر في تانك عايفي مباي من تيب مخناو دفلني نندم سعار مي دكتور طارق بابر في تانك عايفي بي من طيب مخناوي الشمس عاربي موج التور طاري على في تنك عارفي بي من طيب مخناوي بيكون تردايري danga jàngul xilaasu zaat ba ci buntu mu zeynatu mbay min tiibi max naaw man ngeen si yaay mbay mooy docteur laay bay fi tànk aaw fi mbay ah. min tiibi